Doxine bu bees yi Sénégal mbokki Sénégal mbokki département de Kër Massar man Bara Gaye tête de liste coalition Yewwi wàllu askan wi maa leen di nuyu bu baax di leen sant ci ànd ci ak ki nga xamante ni mooy suma sœur Fatou Sow yi nga xamante ni moom la coalition wàllu proposé ñun ñaar ñooy dagaan baatu askan wi fii ci département de Kër Massar ginnaaw bi ma sante bu baax gërëm ñi nga xamante ni ñooy askanu Sénégal ci élection yi ñu génn nga xamante ni deful juróom-benn weer ci seen confiance bi ñu porté ci li nga xamante ni mooy la grande coalition Yewwi Askan Wi jox ñu ay collectivités territoriales yu bari rawatina ci département de Kër Massar bi ñu nekk ci juróom-benn collectivité territoriale ngeen ñu jox ñu li nga xamante ni mooy juróom yi ak département bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yàlla dogal na ñu tëggaat ay jongante yoo xamante ni fële ca waxukaay ba muy ca pencu ndaw réew ma fa la ñu war a dem te ku ne xam na ni député tabaxul ay pont député tabaxul ay gratte-ciel député àndalul géej déplacé wul ay montagne waaye plaidoyer bi nga xamante ni moom la député bu am fulla ak fayda war a def ca hémicycle ba mën na saafara li nga xamante ni mooy jàngoro yooyu ma lim euh, léegi léegi ni yàlla dogal ñun ñu nekk ci contexte bu xaw a doy waar fii ci département de Kër Massar ndax dañu di département bi mujj ci Sénégal département boo xamante ni biñ koy institutionnaliser manqué na lépp amul dara département bu manqué hôpital bu amul université amul industrie amul dara te ñu am benn catastrophe écologique boo xamante ni c'est au niveau mondial la ñu koy waxtaanee muy mbëbës nekk loo xamante ni ñun doomi Kër Massar ñoo am problème boobu di ci jànkoonteeg ak li nga xamante ni mooy jafe-jafe yooyu suñuy doom ñoo ciy feebar suñuy mbokk ñoom ñoo ciy dee suñuy doom ñoo ciy jànkoonteeg ak ay maladie ñun ñoo ciy jànkoonteeg ak pollution atmosphérique ak sunu ndox mu yàqu donc jàpp naa ni war nañu am ca waxukaay ba ñoo xamante ne ay député yu am fulla ak fayda lañ ngir mën a porter ce plaidoyer yàlla dogal na état du Sénégal à travers ses partenaires au développement war nañu injecter dans le cadre du Promoged benn projet de 300 milliards loogi nag bu fekkente ni jëluñu suñuy responsabilité projet bu mel noonu li nga xamante ni moo fi daan jaar di ñu romb projet boobu noonu la nar a demee cest à diir seeni xarit la ñuy jël fexe ñoom ñu gën a gis seen bopp ci projet boobu alors que ay doomi Kër Massar ñoom ñoo war a jëriñu parce que y a ce nappel à travers le monde li nga xamante ni mooy euh, la stratégie la pollueur payeur ñun ñi nga xamante ni ñoom ñooy jànkoonteeg jafe-jafe yi ci mbëbës ñun ñoo war a gën a gis suñu bopp ci li nga xamante ni mooy saafara soosu yi nga xamante ni moom lay jur am nañu problème mu littoral sunu littoral bi or la war a nekk waaye caxat-caxat gi nga xamante ni moom la ko état bi nar defee donc xale yi Kër Massar waruñu naruñu ci gis seen bopp sunu problème mu route ñaay bi mi ngi fi sunu problème mu sécurité mi ngi fi sunu problème mu forêt bi mi ngi fi mu emploi des jeunes mi ngi fi mu financement des femmes mi ngi fi loolu yépp il faut ñu am ay député yu wute ak yi nga xamante ni moom la ñu daan am pour li nga xamante ni mooy sunu problème ñu mën ko régler mbokk yi yéen a ko gisandoo ak man liggéey bi nga xamante ni moo ñuy xaar assemblée nationale xam ngeen ni kon dina metti mais incha allah danañu def suñu kéemtalaay kàttan pour nekk à la hauteur ndax li ñu soxla mooy am député yu am fulla ak fayda yu mën a défendre ce département de Kër Massar ndax yàlla dafa dogal ñu waroon a am ñeenti député ndax département bu am 600 000 habitants la mais président Macky Sall comme dafa perton lamentablement élection locale yi ci juróom benn collectivité territoriale yi ñu gañe juróom yi gañe département bi moo tax mu sànni ñu ñaari député fulla nag mooy jaay daxaar wala mu mos jeexal ko donc ñun ñi nga xamante ni ñooy ñaar ñi ñu tànn pour ñu war a dem assemblée national li ñu leen promettre mooy na ma liggéeyee woon ba bokk parmi les meilleurs maires du Sénégal 2014 ba léegi incha allah danañu ko liggéeyee ngir mën a bokk ci député yi nga xamante ni ñoom la ñuy askanale ni ñoom ñooy les députés du peuple ndax suñu département daf ko mérité demee ci li nga xamante ni mooy bannière Yewwi Askan Wi intercoalition Yewwi ak wàllu bannière bi ko porté fii ci département de Kër Massar mooy yeewi askan wi donc ñi nga xamante ni ñoo bokkoon ci wàllu ñi nga xamante ni ñoo gëm wàllu Sénégal li ñu leen di wax mooy nañu voté li nga xamante ni mooy yeewi askan wi yéen ñi voté woon nag yeewi askan wi ñu ngi leen di ñaan ngeen dàbbali comme d'habitude nañ ko defee woon incha allah au soir du 31 juillet ñu mën a def li nga xamante ni mooy jubilé bi le lendemain seen i doom dugg assemblée nationale ñu représenté leen dignement maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf tëralin suñuy constitution la paix civile au Sénégal yeewi mooy sa mission askan wi